xam nga géeju senegal kenn mënu fee napp te ñun joxuñu la parce que ñoo ko moom patrimoine national la te joxuñu la sañ-sañ nga def ko muy benn kon ku ciy nap rek xamal ni dafa yor ay kayit yu ko may léegi nag euh, débat boobu amul njëriñ ba mu ñu jural wax dëgg yàlla euh, maa ngi doon xaar boo loolu laa ñu ne Alioune wàcc na yoon te maa ngi sant yàlla parce que gëwuma ni danañ ko danañ ci dut baaram loolu moo am solo la ja des mooy nañu liggéey parce que secteur la boo xam ne lii mu encadré ci ci mbooloo te nag sëñ bi nag quand man samay mbokk ci ne nag xanaa nag li booy loo dem bay yàqal say mbokk direct maam naam Sénégal yëpp samay mbokk lañu waaye lii moom man bëgg naa bu may dellu ci fi nga xam ne foofu laa fekk baax quand même mais mën a xool nit ñi ci bët donc loolu vraiment lu nekk suñ gannaaw la euh, na acteurs yi jublu ci li nga xam ne mooy seen i yitte mooy seen liggéey mooy seen koom mooy seen sécurité loolu lépp nag gis nga lii dogal bi ñu jël nii ci bateau bi moom la ñu jégal ci observateur yi war a nekk ci bateau yi moom la ñu dogal ci euh, audit bi nga xam ne war nañ ko def ci ci ci navire yi ci flotte bi ci pat euh, pavillon sénégalais donc yooyu ministre bu ko jël xamal ne kii bëgg na loo xam ne dëgër na man bëgg na dëgëral secteur am te nag bu ma ko defuloon it sama sama njiit ki ma fi teg te jox ma mission bu leer xanaa kon mu artu ma am fu mu ma tegaat wala mu am ay décisions yu mu jël kon loolu damay dalal sa xel mbokk mi loolu wees su nañ ko ñu ngi ci yeneen tey li ñu yitteel mooy lan yan jéego la ñu war def pour secteur bi développé wu. Sénégal mënul am société bi ñu nekk nii mu am solo ci liggéey bi muy def ci wàllu réparation navale ak yooyu yor centre de recherche yi ñu yor yor flotte bi ñu yor yor 718 kilomètres de côte ñu bëri soxla ko ba pare ñu nekk ci ay détails di ci perte suñu temps.